mu ci amee moom Ousmane Sonko démb la wàcc ca marché bu Colobane ak ca Anse Bernard doon amal nag ay nemmeeku waaye nag foofee ca Colobane gi nga xam ne rek moom la amal jëmale ko ci kaw marchand ambulant yi nag yéenekaay bi ne premier ministre jamono ji nag ma ngay jënd glace état bu Sénégal fas yéene naa jël lépp luy ay responsabilité ma naam xam nañu ne nag lu jëm ci wàllu déguerpissement yi du ay mbiram ndax compétence su mairie yi la yéenekaay bi di xam ne nag muy état bi muy mairie yi ba ci askan wi nag ñoom ñépp seen responsabilité mi ngi ci wàllu occupation anarchique bi nag Ousmane Sonko di xam xamle ci biir yëglekaay bi na ñoom ñi ay commerçant yu jàmbaare lañu di daan seen doole ci wàllu jënd ak njaay kon nag kenn waru leen koo yàqal occupation anarchique bi nag doon na lu mu ñaawlu lool waaye nag ma ngay xam ne ni daañu ci jël ay mesures d'accompagnement yoo xam ne rek dinañ mën a gunge ñi xam bërëbu jaayukaay ci jamono ji nag moom président de la république Bassirou Diomaye Faye mi ngi sàkku ci waa mairie yi nag ngir ñu daal di woyofal opération de déguerpissement yi nga xam ne rek moom la ñuy amal jamono ji te jiital waxtaan ci seen digganteeg marchand ambulant yi yéene kaay bi ne ñàkk déggoo kay mel ne ni nag am na ci diggante élimaanu jëwriñ bu Sénégal ak ministre de l'intérieur jëm ci wàllu déguerpissement yi nga xam ne rek xewal nañu ko jamono ji fii ci réew Sénégal l'observateur addu ba tey ci gouvernement bi nga xam ne rek boobaak léegi ma ngay amal ay déguerpissement yéene kaay bi ne double la ñu nekk di jouer ci jamono jamono ji nag ndax jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi nag ma ngay lu jëm ci wàllu déguerpissement yooyee nag Ousmane Sonko ak ministre de l'intérieur ndax ñoo bokk benn gouvernement yër leen boobee yëglekaay lu mu ci mënti doon daal laas yëglekaay ma ngay xam ne nag ne déguerpissement yi mi ngi tàmbale yëkkati xolub ñii di ambulant yi Ousmane Sonko ma ngay amal ab show foofee ca Colobane Le Quotidien yëglekaay ne ci kanamu ay marchand ambulant yoo xam ne rek dañoo mer bay futt artu ca la taxawee nag moom Ousmane Sonko di amal ab discours ngir dalal leen ma ngay sàkku ñu daal dakkal nag lu jëm ci wàllu opération de déguerpissement yi nag ma ngay calmer ndaw ñi enquête yëglekaay na ko ca kay moom Ousmane Sonko ma nga fay jéem a wut ay saafara ardu jëmale ci leneen mu di coowal déclaration politique générale jamono ji nag pënd ba wureegul ndax Vox Populi ma ngay xëyee niki ji nag ci ñàkk déggoo gi nga xam ne rek moo am ne bureau bu assemblée nationale jamono ji nag dañoo daal di nag ne duñu fa amal ab débat ci wàllu orientation budgétaire ayib dafee di àddu ci bu bon bi nga xam ne rek moom la bureau bu assemblée bi daal di fësal mësuñu koo waxtaanee mbaa ñu càmbar ko ñu valider ko ci ab réunion bu ñu doon waxtaanee ci teewaayam ci biir yëglekaay bi nag moom Moussa Diakhaté mi nga xam ne rek mooy président bu commission des lois di xam ne ne bu a sàmmonteeg ministre na déclaration politique générale nekkul rek obligation constitutionnelle waaye ab devoir sacré la ndax article cinquante cinq bu suñu constitution nag moo daal di sàkku ci képp la falee nga dem ca penku ndaw réew ma ngir amal déclaration politique générale Sud Quotidien daal koy feelu ne assemblée ji nag ma ngay amal bi nga xam ne rek élimaanu jëwriñ bu Sénégal dafa génn di xam ne ni du fa amalee ab déclaration politique générale majorité bi jamono ji nag ña ngay gàllankoor liggéey ba bureau bu assemblée nationale national daal dinay dàq nag débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne rek samdi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin moom lañ ko waroon a amal bu ñu sukkandikoo ci njiital groupe parlementaire majoritaire bi nag ma ngay xam ne dogal googee ñu jël nag ñu ngi ko daal di amal ginnaaw bi élimaanu jëwriñ bu Sénégal xam ne ni nag du jaar ci assemblée nationale ngir amal déclaration politique générale docteur Momar Thiam dip spécialiste en communication politique moom ma ngay xam ne ni boo moytuwulee nag daañu yegg ci tas lii nga xam ne rek moo di assemblée nationale bu fekkente ni jooyantiwaatuñu nag règlement intérieur bi les éco yëglekaay ne législatif bi kay jamono ji nag mi ngi defante ak exécutif bi bureau bu assemblée nationale lànk nañu ne duñu amal lii di débat d'orientation budgétaire bi Abdou Mbaw nag di ñaawlu kàddu yi nga xam ne rek Ousmane Sonko yëkkati na koo jëmale ko ci kaw assemblée nationale ayib dafee na ko da ngeen sonn rek waaye bu yeboo ngeen noppi te xam ne dara mënta tere kilifay Sénégal amal seen liggéey ci anam bi ñu ko bëggee Walf Quotidien ne fi mu toll ni daal pënd ba wuréegul enquête yëglekaay ne ko waaw waaw débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne rek waroon nañ ko amalee ci assemblée nationale jamono ji nag ñoom député yi takku nañu ba dëgër fas yéene jàkkaarloo ak Ousmane Sonko guerre la ñu ko déclaré jamono ji nag l'observateur na gouvernement beeg assemblée nationale coup pour coup la ñu nekk di amal Ousmane Sonko lànk na ne du amal déclaration politique générale assemblée nationale delloowaat ko ministre de finance am laa séglekaay xëyee kàddu yi Abdou xam ne rek ma ngay leeral ne Ousmane Sonko naam reconnaîtreul parlementaire yi nag ñu nit duñu mën a reconnaître ministre am yéenekaay bi ne jamono ji nag juróom ci ay confédération syndicale nag ña ngay yëglu bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu sénégalais yi doyal nañu sëkk ndax fi mu toll nii nag bëggatuñu réew mi tàbbiwaat ci guute goo xam ne rek crise institutionnelle wala politique lay doon ginnaaw bi ñu fi dundee ay jafe-jafey socio yoo xam ne rek nemmeeku woon nañ ko ci jamonoy élection présidentielle yi ña ngay sàkku ñoom ci kilifa yu Sénégal ngir ñu fexee saxal jàmm ak dal fii ci réew Sénégal ngir benn fitna dootu fi jolli jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram stade yëglekaay mi ngi àddu ci lu jëm ci wàllu euro 2024 yéenekaay bi ne France ak Portugal jamono ji ñoo ngi ci pression